di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn di nuyu séeréer yi di nuyu ñëpp bàyyiwuma kenn. am na également laaj bu njëkk rek euh, tey bu ñu la waxoon kan mooy Zeyna euh, la aussi lépp la nga xamante ne rek bokk na ci luy cosaan ak aada. Mm-hmm. Euh, surtout suñu côté séeréer culture séeréer. di promouvoir pantisi ñu koy wax rabal di promouvoir aussi peme euh, yooyu yëpp dafa fet bokk ci li nga xamante ne daa dañ koy da ci yooyu lañuy yëngu mm-hmm. waa fas yéene ko yóbbu aussi partout dans le monde pour wane suñu culture vraiment man dégg daal da voilà loolu laa bëgg incha su ko yàlla dogalee lool mooy sama rêve. Euh, bu ñu mu ngi musique dama ko bëgg dama bëgg musique en plus sama yaay da daan waay. waykatu cosaan la woon da daan woy ay tëgg gàmb da daan way aussi si làmb yi euh, mën naa ne ci moom laa doon ne way mhm. mais musique dama ko bëgg bu baax a baax a baax. bëgg musique nag moom moo ma dugal ci musique. Mm-hmm. est-ce que mën ci ban ana ngay defee ban ban lay def. waa afro penta lay def di def acoustique même damay def tuuti mbalax musique universelle. Mm-hmm. waaw mais à travers sama langue dama koy woy en séeréer di ko woy ci langue yi yëpp. Mm-hmm. comprendre mais aussi euh, di di di di promouvoir la si sama biir musique. sama culture sama cosaan ak sama aada di ko fësal ci sama samay texte di ko fësal ci sama samay sama image di ko yóbbu partout dans le monde répertoire répertoire Zeyna tey lan la am na album Zeyna ci am na album am na album depuis 2021 sama frère euh, Rijal Yaa Salaam moom moo ma ko defal euh, su album bi weesu sama carrière euh, ci musique neex na neexul parce que dañ nekk si jamono ja nga xamante ne bëgg a doon dara dafa metti lool mm. rawatina fii ci suñu réew boo gisee ma ni la rawatina fii ci suñu réew duñ ñi la war a jàppale duñ la jàppale dinga nga def lu tout di nga ñëfee takk sa ndigg def lépp mais ñi la war a jàppale duñ la jàppale donc euh, ba tax na ma gis ne li ci pexe mooy bañ a yàkkamti te am patience bu baax a baax doyloo fi la yàlla yemale di raam ndànk ba ba àgg fi nga bëgg Mm-hmm. ndax ki wax jafe-jafe la waa euh, jàpp jafe-jafe yi si nekk bëri na bëri na torop non seulement producteur amatul laa mën a wax su amee bëreetul mm-hmm. euh, su weesoo loolu des fois dangay yaakaar nit ku la war a mën a jàppale mu leer la ne kii mën na ma jàppale mais des mu. nangu laa jàppale mais tegal la ay conditions ya nga xamante ne du du adopté ak sa éducation ak sa sa sa dundin donc euh, c'est obligé nga reculer xaar ba gis la nga xamante ne vraiment boo fa yeggee di am carrière bu rafet carrière bu set carrière bu am valeur daal moo tax. ndax li nga wax day dëggal yenn ñu wax ne day am ci milieu ci milieu public bi yaakaar am lu si mel ay promotion kanam beeg <laughs> loolu dëgg la mais man dama jàpp ne du rek si milieu artistique bi. xëy na ñun dañoo gën a fës mais fépp fa nga xamante ne rek jigéen mën na faa liggéey loolu dafa am mais si ñun nag daf fee gën a fës donc tax na ba man damay wax képp ka nga xamante ne jigéen nga nekk ci millier bi. bu la ko dara jaral parce que après doo am carrière bu yàgg bien vrai boo boo ci duggee loo woy baax na mhm. loo woy baax na c'est l'essentiel na nga dem parce que ñi la koy defal ñun lijjantiwuñu sa carrière lijjantiwuñu sa talent mhm. donc je préfère boo nekkee jigéen nekk ci milieu bi toogal am sa talent jàpp sa talent te xam ne même soo soo su la ñi lay proposer promotion canapé suñ la jàppalewulee ci ni ñu ko bëggee yow sa talent dina la jàppale ci ni nga ko bëggee parce que du ñoom rek ñoo nekk ci milieu bi bëri nañu nekk ci milieu bi mm-hmm. et sooy xool ñi lay jàppalee ci côté boobu soo nangoo promotion canapé bañ jàppale la si ki la ki la jàppale fi mu yem rek nga yem ci ñi mu xam rek ngay déroulé ci benn turu ngay nekk di tourné di tourné seeni festival ak seeni spectacle mais doo dépasé foofu lu tax mooy ñëwee woo talent mais soo amee talent jaar fi nga war a jaar doo yem si benn turu dangay war a àdduna vraiment moo tax na may conseillé képp ka nga xamante ne jigéen la nekk ci milieu bi di ko wax ne bu mu yàkkamti ndànk-ndànk tepp-tepp moo gën yuréel mm-hmm. waaye yéeg ci kaw un an deux ans troisième année ñu fekkaat la ci suuf am na lu ko lu ko gën et puis bu ñu lay fekk ci suuf fekk la ci ci anam ya nga xamante ne sa valeur dootu fi nekk sa sa dafay doy waar daal. Mm-hmm. waaw ma ngi wax ne rek bu dara jaru ko fi. dara jaru ko fi am na solo am na solo am na solo loolu euh, la ñu euh, wax noonu peut-être bu ma ñëwaatee ci euh, li ngay def li nga xam ne moom mooy. Euh, di promouvoir culture euh, Sénégal bu Afrique tamit di ñëw général ci promotion boobu tam ñu gis ne li nga xam ne moom mooy euh, pañ ñu koy woowee sa rabal daf si gën a fees lan moo tax peut-être choix boobu nga porté nga porté si pañ donte li ngay fasal yeneen mais pourquoi le choix ci pañ boobu mooy pañ li muy li muy paañ li muy servir doomu aadama ci dundam dafa bari déjà dina la protéger am na paañ ya nga xamante ne protection la am na paañ ya nga xamante ne dañ koy utiliser boo seetloo sooy so su su ku jigéen ki di sëy suñ koy muur muy dugg ci néegu jëkkëram paañ lañ koy teg bu fa jógee su ko yàlla mayee mu mu am doom li ñuy njëkk a teg ci xale bi paañ lay doon euh, ak suñu càmmiñ yi nga xamante ne ñu ngi dugg néegu góor di génn paañ lay duggee donc paañ nekk na la li mu symboliser dafa bëri voilà bu nit génnee àdduna di dem paañ moo koy dunge li mu sombi symboliser dafa bëri looloo gën a tax ñu toogoon xalaat waa ñu ne nañu jël lii di pañtise rabal promouvoir ko gën a xamal nit ñi li li nekk ci pañ euh, yóbbu ko aussi partout dans le monde àdduna bi xam li nekk ci pañ mm-hmm. waaw tey ànd bi ngay yëngatu musique bi mën nañu xam lan la apporté la ki nga xam ne mooy moom mooy Zeyna ak it euh, wéy bi ngay wéy est gis nga ne euh, peut-être ce public ñu ngi koy approprier am impact positif bu ñuy def si ñoom mu ngi may apporter vraiment lu bëri sama public aussi apprécié nañ bëgg nañ li may def samay fans ñu may jàppale bu baax a baax aussi te loolu mooy lu si am solo loolu mooy ci am solo bu ma amoon benn nit kese comme sama fans sax bu ma woyee mu neex ko man neex na ma boo gisee ma wax loolu mooy que artiste bi lépp looy def rek na doon la nga xamante ne boo ko defee ñi la bëgg dinañ ci kontaan ñi ma bëgg dinañ ci kontaan te gis naa ne li may def ñi ma bëgg kontaan nañ ci samay fans kontaan nañ si ba tax na man tamit ma am ci bu baax a baax lu ma neex. peut non looy waajal peut-être euh, waajal est que mën ngeen si ñëwalaat euh, lan ñu ngi waajal événement au théâtre Daniel Sorano le 28 événement bu mag nekk première édition mooy suñu première édition ñu ngi si préparation yi incha allahu rabbi euh, dinañ ko publier ñëpp gis événement bi ñu ngi ko tuddee ñu ngi di xabal. sargal suñu yaay encore voilà événement bi ko tuddee ñu ngi di rabal sargal suñu yaay ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn di fansi fans yi di woo séeréer yi fu séeréer nekk Zeyna euh, Zeyna mi ngi lay woo di woo waa Joal bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn di woo yi joolaa yi bàyyiwuma kenn. waaw je suis de Joal waaw. <laughs> <laughs> sama dernier message d'abord damay sant bu baax Rijal ya salaam bu baax a baax a baax parce li ñuy wax fekk na ma esxaar la wax yóbbu ma estar li ñuy wax mm-hmm. euh, fekk na ma ba jaaxle génne ma fa ci gunge ma jàppale ma ci te yàlla rekk tax Euh, ma gis ne depuis ma xam ko mu gérer sama musique gérer di arrange samay son di ma woyloo laa am lii ma am tey jii ba tax na mënuma def dara te santuma ko bu baax maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm bu baax a baax a baax euh, vraiment li mu def yombul jàppale jigéen te yàlla rekk a tax di dégg lu nekk di di daj lu nekk nga jàpp teew a bàyyi yombul yombul ba tax na maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax di la jaajëfal yow tamit yow mi ma yaatal tàllal ma sa loxo di jaajëfal euh, Ramatoulaye Bodian moom aussi jàpp na si bu baax. Ramatoulaye day jàppale Zeyna te xamul Zeyna dañ doon déggante ni téléphone kese donk ma xam ne yàlla mu may sedd ay nit ñu baax loolu sant yàlla sant yàlla aar bi nag neexul des fois nit woo la ba nga ñëw mu mu mu mu won la nga xamante ne fooguloo ko te te te loolu yëkkatiwu la loolu taxul nga dugg ci musique des fois ay nit dañ may woo pour jàppale ma li ngay def neex na ma li ngay def neex nañu mais après danga bëgg ñu xam la danga bëgg siiw walla non c'est Zeyna du dafa bëgg a siiw Zeyna dafa bëgg a li nekk ci moom yóbbu suñu traditionnel partout dans le monde parce que nit nit nit a ngi fi di am lu nekk ci musique te kenn xamu ko di di partager culture am fu nekk di wër fu nekk di jouer festival yépp ci àdduna bi te kenn xamu ko ni ko xam bariwul amul buzz donc man dama jàpp ni am buzz am carrière bu rafet moo ko gën am buzz am talent moom moo ko gën parce que soo amee buzz te amoo carrière wala nga am buzz te amoo talent boo amulee amee buzz amoo carrière amoo talent am xaalis te soo amee buzz te amuloo xaalis li lay fakastal dafay yomb voilà vraiment maa di di di jaajëfal nag sama famille hmm. Mbin Jombo maa ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp aussi bàyyiwuma kenn Fobole Séréer simnaam foofu maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn di woo ñëpp ci événement bi nga xamante ni moom la ñuy préparer le le 28 mai di góor ak jigéen mag ak ndaw xeet bu nekk maa ngi koy woo séréer yi tukulóor yi joolaa yi euh, soose yi njaago yi bàyyiwuma kenn maa ngi woo ñëpp sama événement sama parrain yëpp aussi maa ngi leen di woo bàyyiwuma kenn na ñëpp ñëw. non déedéet balaa ngay balaa nga def dara faaw nga kii xam ne ñu xam boobu Zeyna lan la mën a Zeyna bu ñuy dégg may ñu benn affaire bu ndaw. ok d'accord. Baba maya tumbukero foog na jumbu masa junju masa ndambao ndonga refu libidore ndonga refu libidore merci beaucoup kontaan naa bu baax a baax mbokku internet yi ñu doon bàyyi xel it ñàkkul ne kontaan nañ ci li nga xam ne dégg nañ ko wan. si jaajëfal mbokk internet yi nga xam ne kon ñu ñu doon bàyyi xel ci seneinfo point net ak seneinfo international suñu différentes plateformes yi di jaajëfal suñu cadreur di leen jox dig daje kon lu yàggul dara rek ak beneen invité.